السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di nuyoo kilifa yoof yëpp rawatina suñu kilifa diine yi di nuyu imaam ratib bu yoof imaam Mouhamed Ndoy euh, di nuyu borom ndombi tànk yi moo xam saltige yi la nday ji réew yi jaraaf di nuyu frais yi di nuyu magi yoof di nuyu njàmbur yi waaye di nuyu le maire de la commune di nuyu également président APEXI waaye di nuyu ñi nga xamante ne ñëpp ñoo jiite ay association yuy liggéey ngir yoof di nuyu dawaayir yëpp di nuyu le président donc de l'association des daara Tidiane de yoof ñu di leen nuyu bu baax di leen tatagal di leen jaajëfal ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko sumba di def waaye di nuyu président COSCAS président Ma Ousmane Samb di ko masawu coono te di ko ñaanal yàlla si mission bi ah mu mel ni rek lii xew tey ah, woote la jëmale ko ci suñu euh, troisième édition boo xamante ne donc dañ koy amal mu nekk conférence ah, mu yemo bi paa tamit ak troisième jour si weeru novembre donc mu mel ni ñett yi daje na ak ñetteelu fan bi daariya bokk ak jokkoo ci bopp bi président Yankhoba Diène ñooy wooteetiwaat ah, seen conférence boobu ñuy amal at mu jot bi nekk troisième édition bi ñu war ko amal le 3 novembre incha allah fële sa juma ju yoof euh, jege almeeru Berelani incha allah donc foofu la ñu koy amale ñu siy woo gépp ki koy amal mooy oustaz Ibrahima Ndoy di wax dëgg yàlla ku am taxawaay koo xamante ne si ñaari édition yiñ génne wax dëgg yàlla ña ran woon tànt ba yëpp euh, sant nañ ko gërëm ko ngir yalla ak la fa wàcceel ci xam-xam yalla yalla barkel ko may ko fekk ak tal te yatal dënnam waaye yit ka koy taxawé moy imam silla ak ñamu ci andal ñep yalla yalla may leen fekk ak tal te ñu man ko taxawé inshallah comme ni nga xamanteni non lañ ko daan taxawé te ñep di ci bekk kon ci nonu na dañuy jox euh, musa Ndaw euh mu euh wo ñi nga xamanteni mom ini day nitu nekk koo xamante ne dina dem leen ak nit ñi kon xam naa moom la ñuy jox euh, mu motteeli woote bi euh, di wax ne rek incha allah conférence boobu comme niñ ko waxee oustaz Ibrahim Ndoye moo koy taxawal ànd si ax oustaz Assane Seck mu nekk oustaz si daariya bi nekk koo xamante ne tamit ku am taxawaay la muy Assane Seck mi nga xamante ne moo nekk TFM di fa def liggéey bi am solo ñu koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal ko ndam si liggéeyam boobu mu nekk sagu yoof dañuy jox euh, Moussa Ndaw Diop di suma papa mu def appelam incha allah Moussa Ndaw bismillahi rahmani rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellu di santati yàlla bi mu ñu mayee fekke ak tal comme ni ko Baye Ousseynou expliqué ni mu ko waxee mbooloo mi oote bi conférence dañuy organiser confrance boo xam ne ñu ngi koy organiser le trois novembre ñu ngi koy organiser ci juma yoof ci ndigalu imam Mouhamed ndoy ñu ngi oo daayira yoof yëpp képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi ñu ngi lay oo ala rawati ñi nga xam ne ñooy waa kër Seydal Hadji Malick waa kër Cheikh Ahmed Tijani Chérif ñu ngi leen di oo yéen ñëpp di oo euh, regroupement des daayira regroupement des daayira ñoom ñi nga xam ne mu xam ñu ngi leen di oo ñu ngi oo ñëpp képp koo xam ne ki yaa ngi bokk si xadra Malikia ñu ngi lay oo pour nga teewee bés bi bés bi nag si suba gi à partir de 9h dinañ jàng ab kaamil sa jumaa ja si ndigalu Mouhamed imam Mouhamed Ndoye kaamil bi ñu ngi rendre hommage Baye Ndonga Ndiaye si kaamil bi Baye Ndonga Ndiaye mi nga xam ne si tarixa bi macha allahu ñun ñëpp am na loo xam ne li kenn amu ko si moom mom mi nga xamne kenn ku nekk ci xadar bi du gëna ci yow ak biram nekk ñu ngi ko bëgg nañ ko ñaanal la yoof di ñaan yàlla lépp lo xamne li ñaan nañ ko fa yàlla nako yàlla nangu ci barki yonante bi lépp lo xamne li ñaanal nañ ko yoof yàlla nako yàlla nangu ci barki xadar bi ñu ngi o yoof bayyi wuñu kenn kep ko xamne ki yaangi wax ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammad rasulullah ñu ngi lay o di o imam imam yi yok ci yoof kep ak naay bi imam Mouhamed Ndoye ñu ngi leen di oo yoof gépp bëgg nañ na kaamil bi yoof gépp teewe ko te kaamil bi yoof gépp lañ ciy ñaanal ñaanalaale si Baye Ndongo wa asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ah, alhamdulilah macha allah woote bi matale na ku ko dégg xam ne woona imaam yi kon association des imams et ulama ñu ngi leen siy woo imam Mutufa jiite ko ñu ngi leen siy woo di woo ayima yi nga xamante ne yëpp ñoo nekk ci périmètre communal bi ak ulama yi ngir ñu ñëw taxawee kaamil nyu ñu rendre su hommage suñu wéyjur suñu sëriñ muxaddam ba El Ousmane Ndiaye ñu gën ko xam ci Baye Ndonga Ndiaye yal na yàlla yokki leeram taas ñu ci kon mom la ñuy euh, fas faskene jangal kaamil boobu ngir rendre ko hommage incha allah ci bés boobu noonu comme ni mu ko waxee woon na regroupement des daariya ak suñu papa Elimane Diène yal na yàlla fay len donc ñu ngi woo tiijaan yëpp di woo jullit yëpp incha allah samedi lay feggool le trois novembre incha allah fële sa jullukaay bu yoof jumaa jë kon ñu bàyyi ko xel dañuy jox rek soxna Binta Seen mu woote si turu jigéen ñi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonante bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi woo suñu mbokki jigéen ñëpp si suñu conférence bi ñuy def le 3 ñu ngi oo jigéen ñëpp sama waa koñ ak sama mbokki politiciens yi ak ñëpp daal jigéen ñi daayira yëpp ñu ngi leen di woo ci bés bi pour ñu jàppa ci le 3 bés bi nag li ci li ma ci gën a neex mooy sama maam Ndonga Njaay mi nga xamee ni moom la ñu di ñaanal ci jour boobu kaamil parce que sama xarit la woon sama lépp la ñoo ngi oo ñëpp nag fameem di oo suñu famille ndax ñoom ñoo bokk benn famille ñu ngi o ñep ñu japp ci bës bi ci bës le 3 bi ñep ñew japp ci mbokk jigeen ñep mbokk mbokki politiciens suma mbokki politiciens yep ñu ngi leen di oo si bés bi yalla nañu yalla jappalé ñu dem see jàmm auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw bañ santé yalla julli ci sangu sangay ñu ngi jublu ci conférence bi ñu wara def le 3 novembre si jumaa yoof en face Belelaan ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn murit tiijaan laayeen ñaseen bàccuñu kenn surtout nag daara yi nekk si yoof dañ bëgg suñu bés bi ñu fekk sañu si comme niñ leen di fekk jee rek di ñaanal nag imaam Ndonga Njaay yàlla na suuf oyof si kawam ñaan giñ koy ñaanal yàlla na àgg si boroom di ñaanal tam imam yi si yoof yëpp bés bii nag ñuy sumba ya nañ suñu borom jappalé ci barke sayyidina Muhammad sama mbokki dina di nak ma ngi leen di woo képp ko xam tane nek nga ci daariye rek ona la di wo daariye ya jappo te nek ci suñu kër ci gàttal dal ma ngi o ñep ma ngi o ñep waccuma ma kenn bismillahi rahmaani rahim ma ngi nuyu ñep di ziar ñep ñu di ñaanal sunu khalifa serigne mbay si Mansour yàlla na fi yàgg te wer yàlla na yan bi oyof ci mom yàlla na mission bi yomb ah dañuy jublu nak ci suñu bes muy besu conférence di le 3 novembre du nono ah ah bi nak dañu si ñaan yàlla képp kuy suñu mbokk jullit rek nga ñëw jàpp si jàppale ñu si bés bi ñu ko jagleel Papa Ndongo Ndiaye ak bépp mboolam jullit mu fi nekk ñuy ñaan fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge a ah, ñuy ñaanal nag tamit suñuy kilifa ndax daayira bi mag la ndaw rakk yaay ñépp ngi ci biir daayira bi daal ñëpp ngi ci biir muy daayira juboo nag ndax mbokk jokkoo ak mbokk la ñu juboo nekk benn di woote nag sab conférence bi ñaan ci yàlla képp ku dib jullit rek te nekk ci yoof woo nañ la woo nañ suñuy mbokk yépp woo nañ jigéen ñi woo nañ góor ñi woo nañ suñuy yaay woo suñuy pap woo suñuy jëkkër tamit man quartier Ndioufène ba ma nekk ba jëm Tongoor woo naa ñëpp woo naa ñëpp nañu ñëpp wuyuse bëgg daal bés bi ñu jàppale ñu ci ñu nga koy defee fële ci jumaa ja muy le 3 conférence la bëccëg bi mooy kaamir bi waaye ngoon gi mooy dajab conférence bi ñuy ñaanal ñëpp nag pii yi aussi mu ngi fi képp ku nekk ci daayira bi woo nañ sa doom woo nañ sa yaay woo nañ sa amndandoo woo nañ sa xarit woo nañ sa lépp ñu ñëw jappalé ñu ci bës bi ba mu réussir loolu rek lañ ci ñaan yalla ñu ngi jéggalu ñépp nak di balu ak ñépp di jéggaluwaat waat na ñu yalla may fekke ak tal may ñu dégg yal na ñu yàlla jàppale wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jamm di ñaanal suñu bop jamm di ñaan yalla def jamm ci dekk bi def ko ci mbooloom dëkk bi fi julli ci nekk yëpp bi ñuy wax nii nag daanaka date bi ñu si bari wax nañ ko jarul ñu koy répété wax nañ lieu bi tamit jarul ñu koy répété li ma amoon lu ma ciy dolli rek mooy góor gi nga xam ne moom la ñuy ñaanal si bés bi ñu xam ne ne ki ñuy ñaanal waa tànk yëpp la ñuy ñaanal parce que moom ku universel la woon bu ñuy wax tànk tamit. daayira bi dafa dem ba law ba nekk sa wakaam bu ñuy wax daayira bi tamit daayira bi dafa dem ba ngor kon looloo tax ñu si woo waa tànk di ñaanal waa dëkk bi jàmm di ñaan bés boobu kaamil yi ñu siy jàng yàlla na doon njiglaayu yoof wala ah njiglaayu tànk rawatina yoof rëq-rëq am yàlla nañ fi jóge jaare fa ba lépp taxawaat ba lépp teguwaat si siraatal mustaqim ñu ngi ñaanal ñëpp ñu ñaanal mbokk yi di woo waa nangaañ nag ñoom ñu xëccoo kax waa tóngoor fala cheikh ba jógee waaye ñoo xam ne waa cër bi ñu am si cheikh bi nañ ko xëccoo waa tóngoor di ñaan bés bi ñoom ñu teew dara jaal ñu wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ku su ne ak santam di leen yëgal bés bu am solo ba nga xamante ne daare bokk ak jokkoo Mon organisé le 3 novembre 2018 C'est Juma Yoff euh, les autorités religieuses en commençant par tous les imams de Yoff di les autorités coutumières nous wo, ñëpp Djarafi, ñi ngi woo les autorités politiques en commençant par le maire de la commune de Yoff muy Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi koy woo ci bés bi et ses adjoints di woo fédération daara yi nga xamante ne moo nekk fii ci Yoff te ki ko jiite muy Iliman Diène ñu leen ci bés bi di woo daara Yoff yëpp bàyyi ñu kenn bés bi nag ñu ngi ko tuddee suñu papa suñu baay suñu ndijaay El ma Massamba Mbeng ñu gën ko xam ci Mass Mbeng di di darajale bés bi Cheikh euh, usmaan Ndiaye ñu gën ko xam ci Baye Ndongo Ndiaye ñu bëgg nag waa Yoff yëpp ñu teew ci conférence bi parce que conférence bi conférence Yoff la conférence su fédération des daara de yoof la ñu woo ñëpp bàyyi ñu kenn donc alhamdulilahi alamin ah macha allah mu mel ni woote bi matale na ah kon li xew mooy daariya bokk ak jokkoo bu tànk comme niñ ko waxe ngir yàlla ak li nga xamante ne ñi ko bokk moo ñu ngi dëkk Ngor Wakaam ak Yoof kon daariya bokk ak jokkoo bu tànk ñoo aye lu 3 novembre incha allah fële sa jumaa Yoof muy feggoo seen troisième édition muy conférence annuelle bu ñuy amal sak année bi yalla mu ngi dogal ñu ngi ko ñu ngi siy rendre hommage suñu sëriñ suñu wéyjur Elaaji Ousmane Ndiaye ñi gën ko xam si Baye Ndongo Ndiaye yalla yalla yokki leeram radiyallahu taala anhu a ah, ñu jël bes bobu nonu comme ni ñu ko xamé suñu wéyjur Elaaji Massamba Mbeng yalla yalla yàlla guddal fanam lool dolli ko sutura moom mooy baayu daariya bi lépp lu daariya bi di yékki incha allah fas nañ yéene ne moom mooy nekk parrain bi à vie incha allah di ko ñaanal wér ak kàttan ak gudd fan waaye comme ni ko président waxe di euh, woote it ci turu imam Mouhamed Ndoye mi nga xamante ne dëgg yàlla si ndigalam lañ koy defee fële si jumaa yoof incha allah di si woo ayima yëpp ngir bëccëg googu à partir de 9h ñu ñëw jàng kaamil ngir ñaanal suñu wéjur woowu suñu sëriñ boobu di Baye Ndongo Ndiaye ngoon gi à partir de quinze h incha allah la ñuy amal conférence bi oustaz Ibrahima Ndoy ak oustaz Assane Seck ñoo koy taxawe imam Silla ak groupe am itam ñoo koy animé. ñu ko fassene waxtane li nga xamantene ne lañuy wax taqwa muy ragal yalla yalla nañu ko suñu borom defal ñun ñepp ah di wax ne yit wa deug yalla wona autorité yof yëpp mo xam autorité religieuse la autorité coutumière autorité administrative ñepp ñu ngi leen di wo ci bobu di bésub tank waye particulièrement nak di besub yof nak fi lañ koy amale yalla nañu ci yalla may fekk ak tal defal ñu si réussite totale inshallah may ñu ci ndam lu kawé suñu اللهم صل على سيدنا محمد الأنوار والأسرار خذ بيدي قدام يا كامل الأنوار والأسرار خذ بيدي قدا بيني يا كامل أنوار والأسرار خذ بيدي قدا يا كامل الأنوار والأسرار قوس بيدي قدا من بين طلعت لنا شمس الهدى كسفت دجى لمن اقتدى يا كامل الأنوار والأسرار قوس sëñ Babacar Si nee anil umaama lu mu baadal marmaqaat balaxal madaal ilayya kaamilal alwaari wal أسرار قوس في دي غدا بيني وله الكمال له الجمال أير قدوة شيخ لمن اقتدى إلي يا كاملا